président Birima Mangara mu ngi wax ne bëgg nañu xamal ne sunu candidature bi ñu amoon forte woon jëmmam mu jiite coalition UDP 2024 ngir mu bokk ci mbër yi jongante sunu candidature boobu conseil constitutionnel nekkaat neenal mu ngi ñuy wax nag ci yenn ci ay éléments information yi ñu joxe wax nañ ne ñun déposé nañ cinquante huit mille cent soixante quinze parrainage maanaam juróom fukki junni ak juróom-ñett yu teg juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom moom lañu ñu déposé au niveau du conseil bañ koy saytu ñu wax ne ci li ñu déposé am na ñaar fukki junni ak juróom benn yu teg juróom-ñaari téeméer ak benn xob ñoom waa conseil commission bi wax ne ci li ñu déposé ba tey wax nañ ne am nañ ci fukki junni ak ñaar yu teg ñaari téeméer ñeent fukk ak ñeent yoo xamante ne wax nañ ne ay doublon la keroog madame Mbacke ñu koy nuyu leeral na lan mooy doublon dafa am doublon interne ak doublon externe lii lim bii nag dañuy wax ne doublon externe la waaye ci loolu nag li ñu gën a yéem wax nañ ne am na ñaar fukki junni ak benn yu teg fanweer parrainage yoo xamante ne nii xàmmewuñ ko ah, ñun ci suñu wàllu bopp nag loolu def ñu ay laaj yëkkati ay laaj ñooñee vingt et un mille trente yooyu vingt et un mille trente yooyu wax nañ ne nekkuñ ci fichier bi te ñun mu leer nañu ay nit yuy dund yor seen i carte d'identité yor seen i lieu de vote yor seen bureau de vote ñu récupérer seen i collecté seen carte d'identité remplir fiche yi boole ko joindre carte d'identité yooyu ak fiche yi déposer ko bëgg nañ xam ndax nit ñooñu kan moo leen génnee ci fichier bi. bëgg nañu xam nit ñooñu nit ñooñu ndax dañ leen a génne ci fichier bi ak kan moo leen génne. loolu nag dafay dëggal dafay dëggal laaj yi ñu daan faral di laaj mënuñu dem ci jongante ci fichier boo xamante ne teewuñ ko mënuñu dem ci jongante boo xamante ne kenn ki tey bi bokk na ci mbër yi candidat buy dem élection da nga war a jot ci fichier bi ndax nag li ñu dal dal na yeneen i dañoo bëgg a xam nag ñooñu ndax dañu nekk ay nit yu génn àdduna ndax dañu nekk ay nit yoo xamante ne ne xëy na dañoo bokkul ci geneen langue ga tax ñoom ñu génne leen wala dañoo nekk nit ñoo xam ne dañoo dëkk ci yenn dëkk yoo xam ne ñoom amuñ fa yaakaar foofu bëgg nañ ay laaj laaj yooyu nag jagleeluñ ko kenn ku dul conseil constitutionnel ah ci loolu nag ngir sàmm suñuy intérêt candidat coalition UDP 2024 dugal na ab recours jébbal ko déposé ko au niveau du conseil constitutionnel ngir ñu wax ñu ñooñee ñu wax ne xàmmewuñ leen te ñiy doomi réew mi nañ ñu wax ñoom fan lañ teg seen ñàkk xàmmee ñooñu leneen li ci topp loolu nag yoon la yoon moo ñu ko may dinañ ko topp waaye nag ñun ci suñu wàllu bopp bépp militant ou sympathisant coalition UDP 2024 nga nekk ci gox yi fasantikoo nekk ci biir réew mi ak bitti réew ñun ñu tënku ci coalition bi doon ay militants war nañu doon ay mouvement de soutien war nañu doon ay parti allié ñoo ngi yeesal sunu engagement ci président Birima Mangara que ñu valider parrainage am que recours bi aboutir wala mu ñàkk aboutir ku ñu bëgg da ngay jot président Birima Mangara maa ngi leen di jaajëfal bu baax.